الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu nu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, waxtaanu tey wi maa ngi ko tuddee rek ay xalaat ak gis-gis yoo xam ne dama koy jëmale ci jàngoro ji lëmbe àddina bi muy coronavirus nga xam ne daj na àddina bi yépp du ñu nekk mukk di wax lee ko sabab walla kële moo ko sabab wala xeexu grande puissance yi la xeexu économie la guerre biologique la yooyu noonu débat boobu duñ ci dugg lu mën a xew jàngoro ji nekk na réalité boo xam ne daj na àddina jàpp na ay nit conséquence bi mu jur ci àddina bi aussi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo li daan dox lu bari taxaw na bunt yu baree bari tëju na te kenn xamul kañ la jamono di soppeeku loolu laaj jàngat bu buur baree bari bu xóot boo xam ne nit ñi war nañ ko cee def rawatina boroom xam-xam yi ak boroom xelaat yi ak boroom xel yu xóot yi awalan dañuy wax ne dafa bokk ci ponki lislaam yi nga xam ne ponki liimaan yi nga xam ne juróom-benn la da cee bokk al imaanu bil qadaai xayrihi wa sharrihi muy gëm dogalu yàlla yu neex ya ak yu naqar yi loolu su fekkee yàlla bu dogalee lu neex nga gëm bu dogalee lu naqari nga weddi ñaxtu caalit doo gërëm dogalu yàlla yow kenn du la boole ci ñu gëm lii xew nii neexul kenn waaye dañuy gëm ne dogal la bu suñu borom wàccee dogal boobu nag nangu nañ ko ne yàlla moo ko dogal ànd nañ ci dogal nag su amee ba pare dafa am lu ñu sant jullit mooy mu sabablu bu fekkee dogal bi lu neex la mu seet xéewal googu lu ko fay saxal ak lu koy dëgëral bu fekkee safaan la mu xool nan lay soppee situation bi ba mu jógee ci situation bu métti boobu mu dem ci boo xam ne bu nooy la bu neex la bu féex la doo toog mukk yàccaaral ne yàllaa ko dogal damay bàyyi sama loxo loolu boo ko defee da ngaa yàlla wuuteeg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga Seydina Omar ba mu buggee dugg ca dëkk ba ñu ne ko dëkk bi daa am feebar bu fi nekk daa am peste daa am mbas mu fi nekk ndeysaan dialogue ba da nga xam ne moo dox discussion ba digganteem ak Seydina Abu Ubayda bi Seydina Omar ne comme dëkk bi dafa am jàngoro man du ma dugg damay dellu Madina ba mu waxee loolu Seydina Abu Ubayda daf na ko afiraaram min qadarillah ndax dangay daw dogalu yàlla Seydina Omar na ko waaw waaw nafirru min qadarillah ila qadarillah dañuy daw dogalu yàlla jëm ci dogul yàlla léegi mu nekk njàngale mu rëy ay téere bind nañ ko ci wax ji am ju mu am am gu mu am solo ne ko nag wax ji nga wax su fekkoon keneen a ko wax ku dul yow Abu Ubayda dinaa ko jëflanteeg moom waaye nag yow xawma nu ma lay def parce que Abu Ubayda dafa amoon cër bu rëy ci biir saxaaba yi parce que garaat bi ko yonent bi takkal takkalu ko kenn ci saxaaba yi mooy wax ji waxoon ne li kulli ummatin aminun li kulli ummatin aminun xeet woo gis am na ku fa gën a wóor ba buñ doon tànn kenn ki wóor ci xeet wa moom lay doon loolu de sama xeet seen bos mooy abu ubayda mooy ki gën a wóor ci xeet wi léegi looloo taxoon saxaaba yi jox ko gëdd fonk ko gis nga sax Seydina Omar bi muy génn àddina daf ne tey su fekkoon ne Abu Ubayda mu ngi dund kon moom laay jox xeet wi mu jiite ko bu ma yàlla laajee ëllëg dana dama naan ko sa yonent moo waxoon ne aminu hadihil umma Abu Ubayda Seydina Omar daal di génn delluwaat ginnaaw saxaaba yi des ba yàlla dogal li mu dogal kon dafa bokk ci dogalu yàlla yi ñu gëm ko mooy lépp loo xam ne day tax jàngoro ji law tasaaroo dañ koy moytu bu boobaa def ko mooy diine mooy lislaam mooy sunna c'est pas la première fois peste di am ci àddina bi mbas yàgg naa am saa yu ñëwee dégâts yu bari lay def waaye waa jamono jooju dinañ wut ay pexe ba keroog ñu koy not te boo comparé coronavirus bii nii ak yi ko daan jiitu bii incha allah incha allah du yàgg dara garab gi dina dina feeñ àddina bi yëpp jot si lii nekk lu ñuy waxtaanee am na pest yu fi jaaroon. yoo xam ne ay millions ngi doomu aadama la góob seeni ruu yóbbaale ko am na peste yoo xam ne boroom xam-xam yi bi ñu koy nettali nee nañ daan nañ def bu ñu jullee juróom ba pare li ñuy teg ci kanam imaam bi pour mu jullee niw yi dina mat junni wala juróom-ñaar téeméeri niw yoo xam ne diggante tàkkusaan ak tisibaar diggante eh, tàkkusaan ak timis diggante julleeg moroom moom mu nekk imaam bi dina jullee lu mu ndaw ndaw juróom téeméeri nit wala junni nit la ko waraloon tey weesu nañ ko dañ koy nettali kon lii tamit du yàgg dara incha allah dinañ am léegi lu koy faj ci kàttanu yàlla ñi koy gëstu kañ ak di dox jëm ci nañ leen ñaanal yàlla yàlla gindi leen yàlla tàggat leen nu mu gën a gaawee defal leen tawfiq ba ñu trouvé jàngoro ji li koy faj c'est pas la première fois peste di am ci àddina bi ak mbas euh, lu mat ñaar fukki junni ak juróomi junni muy vingt cinq mille ci ay saxaaba ñoo xam ne yonent bi leen yar jàngal leen ci peste lañ faatu ci peste lañ faatu ñaar fukki junni ci ay bakkan ak juróom ci pest lañ faatu ñoo xam ne yonent bi moo leen moo leen yar jàngal leen ñu bokk si ñu gën ci xeet wi kon toog fii naan man damaa sell walla damaa am xam-xam wala damaa am lu kenn amul damaa mel nu kenn mënul affaire bi duma laal loolu moom caaxaan weesuwut loolu waxi caaxaan man tuweesu wax jooju dama ni ñii nga xam ne peste bi faat na leen ñaar fukki junni ak juróom ci ay saxaaba gannaaw yonent bi ñoo ñoo fi gën ñoo gën suñuy kilifa diine ñoo gën suñuy sëriñ ñoo gën suñuy boromi xam-xam seenuñu sax seen pënd seen pënd sax képp ku ñëw seen gannaaw séenoo seen pënd ñu de ci pest bi ci lañu faatu réew ma mu dal ñoom ñépp ñu sax ne duñu génn mukk ñun duñu daw comme yonent bi nee na feebar bi bu xasee dugg ci réew waa réew ma bu ñu génn waa dëkk ba buñ génn ñun duñ génn même bu ñuy dee ba jeex pest boobu ci la jàmbaar ji ma leen di wax tudd nga xam ne ashral mubashirina bil janna ci la bokk fukki yi yonent bi bégal ne seen aljanna pare na kii ci la bokk muy seydna abu ubayda bi pest bi di rey di rey di rey di rey seydna omar dafa def pexe parce que moom buggul abu ubayda faatu parce que xam na lim mën a jëriñ jullit ñi mu bind ko lettre ci Madina ne ko yow Abu Ubayda gis nga sama lettre bi bu ci sa bët di tegu rek loo jàpp bàyyi ko te ñëw gaawal léegi wuyu si ma jógeel Sham ñëw wuy si ma Madina dama laa soxla ndeysaan boobu fekk Seydina Omar li mu bëggoon rek mooy génnee ko ci suufu pest bi xëy na bu ñëwee fii moom mu faj ko parce que amal na njëriñ jullit ñi seydna abu ubayda bi mu jàngee leetaru amirul muminina omar def na yàlla yàlla yërëm omar li mu bëgg xam naa ko waaye moom na xam na yàlla noppi na daal di koy bindaat tontu ko tontu bu ànd ak yar teggin xamal ko ne ko man mënumaa génn fii bu dul dara sax dama ànd ak samay nawle ànd ak ay gor ànd ak ay jullit di leen jiite kon yëf yi du tàng mukk ma daw bàyyi leen fi du ma génn fii laay faatoo Seydina Omar bi mu jàngee lettre bi dafa jooy saxaaba yi ko waroon ne ko xanaa Abu Ubayda dafa faatu mu ne leen daanaka faatu na daanaka rek dee na ndeysaan kooku ci peste boobu ci la génn àddina Seydina Abu Ubayda kon bu la boroom xam-xam yi di wax fagarul moytul médecin yi di la wax moytul kilifa diine yi naan la moytul imaam yi naan la moytul mais loolu mooy diine bul fi nekk di dëgër bopp boo fi defee loo xam ne waroo koo def ba dee da ngaa xaru boo fi def ñàkk yar ak yaree ko ba wàll ko keneen da rey bakkan kon nañu moytandiku bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne dañoo faatu ci pes ci mbas bokk na ci sayiduna muaz ibnu jabal jabal mooy saxaaba bi yonti yàlla muhammad waxoon ne ko yaa muaz inni uhibbuka fillah yow muaz man muhammad maa la bëgg man dama laa bëgg te yàlla tax allahu akbar est-ce que nit mën naa déggati ci àddina kàddu gu dàq lii Habibul Moustapha waxal la boppam ci biir làmmiñam ne maa la bëgg xam nga tey ku président bi déclaré woon ne man yow dama laa bëgg dama la considéré comme sama bopp bëgg la mais kooku danga koy tiitaroo bu la ale ab xalifa général ne la dama laa bëgg bëgg la yow maa la bëggal sama bopp danga nga koy tiitaroo kii nag sangu-sang yi moo ne ko man maa la bëgg te yàlla tax ne ko nag nit su bëggee nit daa am lu koy firndeel mbëggeel dama laa bëgg di bëgg bëgg la nii rek te duma la defal dara duma la jàppale ci dara duma la dimbale ci dara loolu du mbëggeel li naa la jox nag ñaan goo xam ne dee ko def li ma la bëgg a tax ma la koy wax mooy saa yoo sëlmalatee ci jullik juróom neel allahumma ainni ala zikrika wa shukrika wa xusna ibadatik loolu ñun ñëpp koy jàng bu nu sëlmalee ñaan googu ci Seydina Muaz la jógee xaritam ba soppem ba yontu yàlla Muhammad wax ko ko mu Muaz mii ci peste bii la faatu xanaa kañ bu fekkoon ne ñoom dañuy mucc ah ñoom ñi yonent bi yar jàngal leen ñoom peste du leen rey waxuma nag yeneen saxaaba yi da xam nga ku lim abu ubaydata lim muaz ibnu jabal daanaka eh, lim nga ñi gën a kowe ci saxaaba yi ci pest ci lañ faatu kon a taarix yuidu nafsahu l'histoire se répète feebar yi ak pest yi ak jàngoro yi ak doomu aadama yi ñoo ànd saa bu benn feeñee ba ñu xeex ak moom not ko beneen day feeñaat loolu moom kenn mënu ci dara kon fagaru te bàyyi waxu caaxaan yi ñuy def bàyyi di fowee diine ji ñii la yonent bi yar ñooy ñi gën ci xeet wi peste leen rey vingt cinq mille ci ay bakkan rod nañ ci pest bi saxaaba yii ma lim ci la bokk ak yeneeni saxaaba beneen bi am na benn lettre yaa layta kull al ulama wal aimma an tasila ilayhim hadihi risala risalatun katabaha Seydou El Hadj Malick ila ila ahli zawiya fi Dakar Seydou El Hadj Malick moo bindoon lettre boobu jëmale ko ci waa Ndakaaru ci 1919 bi nga xamee ne mbas dugg na fi lettre bi guddut ne ñu fexe tasaare ko ci boroom xam-xam yi jàngkat yi gëstukat yi lii ñuy def fatwa yi di nga gis ne fatwa yi imaam yi jël dafa dëppook fatwa boobu man démb la ma ko sama xarit Abdoul Aziz Mbaye yónnee kum képp ku ma xam ngay jàngkat rek yónnee naa la ko tellement que texte bi lettre bi dafa dëppook jamono ca biir ma nga cay wax ne mbas mii de na ngeen ko xeexee di toroxlul yàlla di ñaan di génnee sarax Seydi Hajj Malik moo leen ko waxoon de dee leen toroxlu di ñaan di sàkk sarax kon loolu ñu ngi koy fàttaliwaat nit ñi na ñu génnee ay sarax Seydi Hajj Malik nag nee na sarax moom bu fa nekk ñu naan la rayal xar xar meeg nag weeg nee na loolu moom bokku ci saraxel te yàlla tax rayal lii rayal lii rayal lii kal baqari kal nag walla kal kom nag rayal nag rayal fas rayal mbaam rayal lii nee na loolu amul dangay saraxe te yàlla tax nga ñaan te yàlla tax kon loolu lañuy ñuy fàddaliwaat nit ñi nañu def tadarru ila allah an nukthir min al istighfar waa an nuxrija sadaqaat li wajhi llahi tabaraka wa loolu moom la waxoon démb ci 1919 moom lay moom lañ lettre bi loolu la ñuy moom la ñuy fàttaliwaat nit ñi ne ñu baril istigfaar baril di toroxlul sunu borom waaye tamit di sàkk saraxta yàlla tax beneen bi ci biir lettre bi mu ngi ne nañu moytandiku ñi nga xam ne ay njabarkat lañu walla ñu mel noonu ñi nga xam ne ay buxaaba lañu naan la boo tibbee xorom xuyal ko ci ndox mi walla boo jëlee pas gi takk ko walla ñu lay jox ay imagination boo jëlee xottu gerte mooy li xewoon semaine bii rek ku nekk di génnee wax naa fi keroog na man bi ma ci gën a tiital nag moom mooy bi ma déggee kooku di wax ne soo bëggee mucc ci coronavirus bi da ngay dem wuti tan am tan ngay wut baxal tan am tan tan mooy picc yi lekk médd nee na boo ko baxalee danga nga koy booleeg amana rasul ngay bind boole ko tan mi tan moomu de ku ca lekk corona du la dal bu la daloo nit boo ci lekkee da ngay wér xam nga lii lii lu raglu la euh, man dama mosu gis sax tan man daal tan moom foo ko gis rek mét dafa am léegi koo xam ne medd lay dundee nga koy digal nit ñi ne nañ ko togg boole ko aaya alquran loolu dëgg dëgg dëgg dëgg lu lu ñaaw la rafetul te loolu wartu am waaw loolu yépp ñàkk tënku ci njàngale diine rek moo koy waral Seydi Hajj Malik lettre bi yu bëree bëri wax na ci beneen point bi nee na nañ déglu kër docteur yi fajkat yi lépp lu ñu wax nañ ko def Seydi Hadj Malick nee nañ rafet njort ci ñoom ci fajkat yi rafet njort ci ñoom neena nañu am teggin ak fajkat yi an nuxsina zanna bihim wa an nataddaba maahum ñu am teggin ak fajkat yi rafet ci ñoom njort trois points yii rek laa ne woon dinaa ko seppi ci biir lettre bi fàttali ko nit ñi kon bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax ne dogal yi nga xam ne ay imma yi jël nañ ko muy imaam yi ne nañu ajandi julli juróom ci mbooloo yi jàkka yi nañu ajandi julli jumaa fatwa boobu fatwa bu baax la fatwa bu jaar yoon la fatwa bu xam-xame la fatwa la boo xam ne dafa dëgër du fatwa caaxaan bu am cëslaay la am ay kenn yu dëgër yoo xam ne fatwa boobu ci la tegu nañu respecté fatwa boobu lépp lu ñu mën ci respecté ko nañ ko def euh, wallahi wallahi wallahi imaam yi jël génnee fatwa bii nii même su président de la république jëlul woon dogal dakkal xew xew diine yi imaam yi dañ koy ñaan ne ko dakkal ko parce que mooy intérêt askan wi dañ rafet njortu bu baax ci imaam yi xam ne du nit ñoo xam ne nit ñu ñàkk solo lañu ba ñoo xam ne dañ leen di fowee def leen lii def leen lii déedéet ñoom ba ñuy dajee di ñaax askan wi ne nañ dëggal médecin yi di ci bind ay xutba boobu président waxagul ñoom yëgoowuñ sax ak président de la république dañoo dellu ci texte yi xool ko gësëm ko laaj waa kër docteur lan lañ lan la ñuy def ñu wax leen ko loolu mooy fatwa bi dëgg la maa ngi ciy wax bërki démb ak imam Nazir imam Nazir Kébémer la dëkk imam bu baax imam Nazir Gaye imam bu baax bu bari xam-xam bu am fiiraange ci diine ji waxtaan nañ ci lu yàgg ba maa ngi koy wax na ko imaam man dama jàpp ne xew-xew bii war naa tax lépp luñ doon def pour amal conseil supérieur islamique ñu yokk ko parce que su fekkoon ne conseil supérieur islamique amoon na fi coow li du mel ni bu conseil bi dajee ñépp am ñu leen fi représenté ci diine ji ñu càmbar ko bu ñu génnee fatwa benn kàddu rek lay doon yeneen dëkk yi amul coow amul coow ittihaadul aalami li ulamaa il muslimin ñooy kuréel gi nga xam ne moo moo tan moo moo takkale li ëpp ci ulamaaul umma bi ñoom lii la ñu gis nañu ajandi julli jumaa yi ba jëmmi jamono léegi loolu la Azhar gis loolu la hayatu kibaaril ulama fi saoudia gis dégg nga ulamaul hind loolu la ñu gis kullul hayatil ilmiya fi dunia lii lañu gis kon Sénégal li mu def loolu mooy li normal dégg naa nag nit ñu ci wax ba seen dënn tàng waaye jaru ko débat bi du coow xam-xam rek la laaj indil say argument ci yar ak teggin rafet njortu ci say mbokki jullit rafet njortu ci imaam yi man waxtaan naa ci ak euh, imam daam bi nga xam ne moo jiite ligg bi ak ñeneen dama ne leen man keroog bi ma gisee ñu vide vidé yonent bi tëj ko kenn nekku fa ma gis kaaba gi vide kenn nekku fa keroog am naa lu ma naqari lool ba ci kanam yàlla lu nekk nag ñëw na sama xel mi mais gannaaw gi dama ne nag xam-xam ak sentiment du benn am na loo xam ne sentiment moom ngay doxal mais am na loo xam ne nag xam-xam la laaj argument mais bi ma càmbaree xoolaat xoolaat xam naa ne ñii lii ñu def yoon la kon ñu rafet njort bu baax ci ay imma yi jël <laughs> dogal yii nii dogal yi dañ ko war a respecté mu am nag ay iskaliya yu am euh, noddu même bu ñu demul ci jumaa yi di julli ji ak jàkk yi dañoo war di nodd bépp jàkk bu ñu tëj bu nodd jotee jàkk je ilima bilaal bi na nodd mais bu noddee ba pare dafay wax ne yéen nit ñi jullee leen seen biir kër loolu la ciy teg foofu ñaari wax am nañ ci dafa am ñu wax ne bu ñëwee ba ci hayya ala salaati ñëw leen ci julli gi du wax loolu mais danaan sallu fi rihaalikum sallu fi buyutikum sallu fi amakinikum am ñu ne déedéet na wax rek ba yegg bu bu noddee ba yegg na wax ne jullee leen nag seen biir kër parce que nodd gi dafay fàttali nit ñi waxtu julli dugg na su fekkee ne jàkk yi dañ koo tëj kenn noddul ñu baree bari duñu xam waxtu wi kon loolu aussi nañ ko bàyyi xel imaam yi seen fatwa bi waxuñu bu kenn nodd ci jàkk yi déedéet loolu amul de loolu amul bu nodd jotee jàkk yépp nañ nodd waaye buñ paree nañ ci teg ne nag jullee leen seen biir kër bu leen ñëw ci jàkk ji si taarixu lislaam am na de bu leen foog na tey lay doog a am de tey la doog a tëj jàkk yi demal ci kutubu taarix nga gis ko am na événement yu fi jaaroon yoo xam ne tëj nañu ay jàkk tëj nañu ay jumaa ay jamono yoo xam ne kenn julliwu fa parce que ad daruraatu tubixul mahdurat kon point yooyu bëggoon naa ko fàttali bu ñuy def gëstu ci xam-xam na nekk niqaash ilmi yajib an yakuna haadi an dégg nga mu ñun ñu def ko mu dal bañ di sànniwante ay tuuma non jaru ko demewul noonu waaw demewul noonu ñi ëpp laa wax ñi ëpp ñi ëpp ci borom xam-xamu xeet wi lii lañu gis nañu ajandi julli juróom yi ajandi mboolo julli mbooloo yi ajandi jumaa yi loolu mooy al aglabiya saaxiqa min ulama il muslimin te wax dëgg yàlla nag kon loolu nit mën na cee ndiku waaw unanimité nag amul fenn amul fenn yéen ñëpp xam ngeen ne tey ñi ci référence yu mag yi ci umma bi Cheikh Mouhamad Hassan wul Dudadu ci la bokk bi nekk muritani waaw moom dafa gis ne julli mbooloo bu bu julli jotee dañuy noddu ilimaan bi na dem si jàkk ji jiite ji ak bilaal ba ak ku gis ne war ngaa dem nga dem julli ji jar na sax ñu wàññi mbooloo àjjuma mi waaye bàyyi ko noonu kenn du fa julli moom gisul loolu waaye loolu gisinam la waaye ñi ëpp nag ci ulamaawul umma bi dama ne dañu ji gis ne nañu ajandi lii julli jumaa yi ak julli mbooloo yi bu fekkee ne ñi ëpp loolu la gis tombee ak gouvernement bi ci boppam gis loolu fatwa boobu day dëgër parce que tamit état état yi am état wu lislaam yi yëpp sax la ñuy doxal seeni woromi xam-xam yëpp ànduñu ci waaye état moom day seet benn gisin benn déggin boo xamante ne ni moom lay adopté boobaa day dëgër masalan boo demee maghrib am na ñeneen ñu fa nekk ci yeneen mazahib mais mazhab bi nga xam ne moom la état bi adopté di ci doxal mooy mazhab maliki mais bu jëlee dogal ñeneen ñi nekk ci yeneen mazhab yëpp dañ koy fekk si kon réew mi même su fekkee dafa am ay boromi xam-xam yu fi nekk yu gis leneen xukuma bi gis lii te sukkandiku ko ci fatwa ulama yi ak ay imma yi ñu bari ci ñoom ñi ëpp ci ñoom état da leen di fekk si fatwa boobu day dëgër dañ ko war a appliquer loolu mooy liy dëgg kon suñu mbokk gëstukat yi mbokk boroom xam-xam yi euh, alhamdulillah wane ngeen fiiraa ngi ci diine ji wane ngeen bëgg ngeen diine ji bëggu leen dara manqué ko respect loolu moom feeñ na bu baax maa ngi ciy waxtaan ak imam Nazir Gaye te loolu dëgg la réew mi dafa bëri ay boromi xam-xam dafa bëri ay jàngkat moo tax li ñu ci mën a dimbale mooy créer conseil supérieur islamique mbooleem tarixa yi am ñu leen fa teewal mbooleem association islamique yi am ñu leen fa teewal ba nga xam ne nawazil yi su amee wala yeneen yi nga xam ne concerné na l'islam ñoom ñëpp ñu bokk jëlandoo benn décision waaye en man moom personnellement billahi wallahi tallahi su fekkoon ne fatwa bii ni dama gis ne nasaxal diine la wala xeex diine la ak ku ko mën a génne ci àddina dinaa la songu waaye nag sama diggante ak yàlla laay wax fatwa bii nii bu ñu war a def la bu ñu war a appliquer la te réew mi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dañ cee war a tënku loolu moom lay jaamoo yàlla ci point bii nii beneen bi am na beneen iskaliye bu am ne jàkk yi ci lañ war a ñaanee yàlla foofu lañ war a dem ñaan buñ fa demul kon léegi nu ñuy def nan lañuy def ba ñaan mais loolu keñ ñaanukaay yàlla yi dafa dafa yaatu dëgg la am na amakin yoo xam ne amakin la musharrafa la sharifa la waaw amakin yoo xam ne yaakaar nañ fa ak nangu ñaan waaye tamit am na ay awqaat sharifa awqaatul ijaaba am na bu dee ñaan dong la ak toroxlu nit mën na ko defee feneen fu dul jàkk wallahi léeg nga nekk ci sa ñaan sa digganteeg sa borom nga toroxlu teewlu wéet tuur say rongañ jéggalu sa borom yàlla nangu ko yàlla nangu ko yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi nee na sunu borom de guddi gu ne ci xaaj bu mujj bi dina wàcc ci asamaan si di wax ne kan moo may ñaan ma may ko kan mooy jéggalu ay bàkkaaram ma jéggal ko kan mooy tuub ma nangu tuubam te loolu guddi gu jot la tous les nuits dina am foo mën a nekk jàppal ba sell julli ñaari ràkk jéggalu yàlla ne ko yàlla jéggal ñu baal ñu suñuy bàkkaar te bakkaarkat yi man maa ci jiitu maay ki yées ci nit ñi nangu ne yow la loolu mën nañ ko def fu nekk guddi yaa ngi fi fajar yaa ngi fi xalawaat yaa ngi fi te foofu ñaare ñaan dafay nangu kon boobu it nañ ci bàyyi xel du ci jàkka yi rek lañ mën a ñaanee déedéet fiñ mën a ñaanee bari na daare yi ndongo daara yi nekk nañ leen sécuriser fexe ba du ñu génn ñu jox leen dund bu doy seen njàngam alquran moomu xale yooyu di jàng alquran nañ leen gën a dimbale fan yi sécuriser leen jox leen dund bu doy jox leen naan gu doy jox leen poj gu doy seen jàngam alquran moomu noonu mooy tax yàlla yëkkati mbugal mi mooy tax yàlla jéggal ñu kon point boobu tamit nañ ci bàyyi xel xale yu ndaw yi jàngkatu alquran yi borom risaale nee na jàngal doomi julli di téere yàlla bi dafay fay merum yàlla kon boobu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax daara yi alquran dañ fay jàng dafa bokk ci liy yëkkati mbugal mi day tax coronavirus bi ñu tàqalikoo ak moom euh, beneen point bi aussi gis naa kilifa yu bari di jël seen alal di ko dimbalee gouvernement bi am na fii ci 2STV président directeur général El Hadji Ibrahima Ndiaye ak ñoom Mamadou Ibra Kane ñoom ñi nekk ci média bi dajale nañu xaalis gis naa si télé bële TFM ñoom sëriñ Mbuub dajale fa xaalis bu bari suñu frère suñu xarit Alaaji Abdoulaye Dia joxe cinquante millions ñeneen ñi ñoom ñépp ñi yàlla baaxee Eliman laam ki nekk euh, Cissé ak ñeneen ñooñu ñëpp def nañu ñoom sëriñ bu ñoom ñëpp def nañu pour dajale dimbale état bi loolu lu baax la waaye ndimbal loolu nañ ko bàyyi xel askan wi parce que am na ñoo xam ne bu nu xëyee amuñu lu ñu ndekkee amuñu lu ñu añee dañuy génn dem wuti bu ngoon jotee ñu am dara te ñooñu seen liggéey taxaw na seen dépense taxaw na ñooñu faw ñu wutal leen solution sinon saafara dana jur jàngoro di xeex corona ba mu jur ab xiif ay famille yu dul lekk loolu yal nañu si yàlla musal te loolu nag ñiñ gën a yaakaar ne ñoo mën a jouer role boobu mooy borom alal yooyu nga xam ne xam nañ ne li ñu yor moomuñu ko yàlla da leen koo dénk sëriñ Abdullahi ak ñu mel ni ñoom nga xam ne dimbale jaam yee leen tax a jóg ne ñu bàyyi xel famille yi nga xam ne mënatuñoo génn wuti dara te danoo yor njaboot nañ leen dimbale si ceeb dimbale leen ci lépp loo xam ne boroom kër dina ko soxla ndax ñu mën a toog yaakaar naa ne ni ma leen xamee du ñàkk sax ñu ngi xalaat ci loolu mais fàttali la Baye Mor Mati Sarr nga xam ne ay mag ñu baax lañu waaw Serigne Cheikh Cissé euh, euh, Enakwa ak ñu mel noonu ne ñu bàyyi xel askan wi soxla nañu ndimbal li ñu yóbbu ci gouvernement bi baax na mais nañ fexe nag beneen ndimbal boo xam ne day wàcc ci population yi ñu xool nan la ñuy dimbalee borom kër yi ba ñu mën a téye seen njaboot bu ñu génn te loolu lu ama am solo la jox nit dépense jox nit mu lekk jox nit mu naan jaamu yàlla gënu koo rëy te nag occasion bi jot na dañuy nettali ne yontu yàlla Ibrahima ba mu tax ba mu tabaxee kaaba gi ba pare daa dem ci ñeent koñi kaaba gi koñ bu nekk mu julli fa junni ràkk bi mu sëlmalee suñu borom yebal lu ko wax ne ko yaa Ibrahim maa faaltahu xayr lii nga def lu baax la tabaxal ma néeg bii di kaaba gi julli ñeenti junni ràkk lu baax la walakin luqmatun fi batni jaain ahabu indi min hada kullihi ne ko nga fekk ku xiif nga jox ko benn tib mu lekk ko moo ma gënal nga naafila ñeenti junni ràkk tabax kaaba kon ñi yàlla ma ne gan nañu gestu population yi xool nan lañ koy organiser bu fekkee sax dangaa ragal ne boo leen joxee xaalis ñu yàq ko wala ñu dugal ko feneen jëndee ko dund ravitaillement nga jox leen ko parce que ay jigéen a koy lekk ay xale ñoo koy lekk loolu daal bëgg naa gouvernement bi bàyyi si xool ni muy dimbalee ñiy toog seen kër waaye sunu borom alal yii nii nañu fexe xool ndimbal li nan lay demee ci ñooñu dina am solo lool euh, lii nag liñ ci war a jàngee bari na gis nga lii bu ñu fi yàlla génnee fii lañ war a doxee fagaru ba faw fagaru ba faw fexe ba réew mi li muy dundee mu bayee ko ci réew mi nga xam ne bu musiba xewee it réew mi am lu mu dundee c'est important laa qadarallah yàlla bu yàlla dogal li yàgg mais bu yàggee rek làmbaay dina ñaaw li tax mooy li ñuy dundee lépp daanaka li ñuy soxla ci bitim réew lay jógee mënaluñ suñ bopp dara bu ñu jógee ci lii nañu gën a takku fexe ba réew mi li ñu soxla ci dund li ñuy lekk ñu mën koo defar ci réew mi ba du ñu nga xam ne bitim réew bu ñu téye woon seeni mbirit ñu mën a dund boobu bu jara bàyyi xel la yàlla nag dafa maandu dafa maandu maa ngi waxtaan ak sama xarit alaaji Mbàkke Silla ma ne ko alaaji alaaji yàlla moo maandu feebar bii nii seetal tubaab yi fan yi liñ daj bu fekkoon tey dañoo ubbi rek suñu frontière ne leen ñëw leen Sénégal dina fees dell dell dell ak ay tubaab dañuy daw làqatu si fii yàlla ci mbaaxam suñu autorité mujj tëj frontière yi parce que buñ ko tëjul woon ñun ñëpp dañuy korona ñoom ñoo ñu koy wàll seetal nag ñun buñ bëggee dem seen réew yi li ñuy daj dangay nekk kilifa ñëw bëgg a tukki dem Europe seeti say mbokk say xarit dañ lay kall-kalle di la fonto yow booy dem Europe day mel ni ajana ngay dugg yow da ngay dagg bee pour dem aljanna coono bu ne dinañ la ko teg gis nga yàlla tey lim leen teg ñoom bëgg na noo ñëw fii mais mënuñoo dugg àddina na nu joxante cër nawloo wante nit ñi fi ñuy gënante ci ay valeur la ci xam-xam la ci jikko ju rafet la mais di wane ne man tubaab la grande puissance la nga jefeel yow booy dugg sama réew doo am benn kayit da ngay ñëw dugg nu mu la neexee ba mu neex la nga dem man su ma buggee ñëw nga ma naan ma ay visa ak di def lii vraiment loolu dafa war a jeex kon yooyu yëpp yu ñu yu ñu war a sante yàlla la waaye beneen cant gi aussi mooy sant nag yàlla ba feebar bi bi nga xamee ne feeñewul Afrique wallahi corona bi su fekkoon Afrique la feeñee ñun dootuñu jar dara ci àddina bi seetal rek Ebola bi bi mu feeñee fii lu nekk yàq nañ ñu ko waaye yàlla gis nga ni mu tëralee malheureusement ñun sax heureusement sax ñoom ñoo ñu ko wàll far bu fekkoon ne nit ku ñuul moo dem di ko wàll ab tubaab laa yërëm naa Afrique waaye ñoom ñoo ñu ko wàll loolu yépp ci mbiru yàlla la kon mbokk yi. lii ay xawaatir la yoo xam ne buggoon naa ko bokk ak yéen lu aji ci corona bi point bu mujj bi nag mooy ñun ñëpp nañu am yaqiin ci yàlla ne yàlla jàngoro ju mu wàccee rek wàcce na lu koy saafara te ñu ñaan yàlla trouver médecins yi ñiy gëstu ñu ñu ñu yàlla wan leen luy faj jàngoro ji ñu am yaqiin ne yàlla da koy nangu man dama gëm ne lii day jeex léegi mu jeex en tout cas man loolu laa gëm maa ngi ñaan jullit yëpp nag ñu ñaan yàlla jeexal ko nu mu gën a gaawee bu ñu tiit mukk bu ñu jaaxle lii day jeex facilement incha allah dootul yàgg dara ja garab gi dina tas ci àddina bi dinañ ko jëfandikoo dina wér bu soobee yàlla mu nekk loo xam ne dañ koy nettaliwaat kon mbokk yi lii laa leen indiloon tey mu aju woon ci xawaatir yi ñu am ci feebar bi ñaan yàlla ajjuma yii di ñëw ngir yàlla tëj leen jumaa yi ngir yàlla tëj leen jàkka yi loolu la ulama yi wax yow boo ko tëjee wala boo demul jumaa yowmal qiyaamati neel yàlla imaam yi ñoo ko waxoon yow lu sa yoon nekku ci lasta masulan amaam allah al ulama wal a'immatu wal mashaayix humul masuluuna amaam allah humul lazina aftuuka ñoo la defal fatwa ne la toogal looy dëgër bopp toogal ngir yàlla bés boo waree julli waat julli jiwaat jumaa danañ la ko wax boroom xam-xam yi d'accordal ci fatwa bi nañ ko critiquer wax ci ak xam-xam ak dal ak yar ak teggin ak respect ak worma loolu lu am am solo la kon loolu laa leen indiloon tey di leen jox dig daje incha allah altine bii ñu jëm yàlla nañ ko fekkee jàmm te fekk corona bi ñu gis lu koy faj ci kàttanu yàlla lakum minni alxubbu wa duaau dawman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu